c'est-à-dire aujourd'hui la paire de manches les gens ne vous comptent vous dites que vous êtes les chefs le chef de l'opposition les gens ne amul problème mm-hmm. mais la paire de manches mooy euh, nan ngeen di euh, fexe ba sénégalais yi euh, comprendre délimitation bi ngeen di jéem a dugal ne ah ñun kat nous sommes une opposition républicaine ñële c'est une opposition qui appelle à à l'insurrection mais nan ngeen di def ba sénégalais yi xam lan mooy différence bi entre Idrissa sec ak ñi ngeen di jàpp ne Euh, ñoom son son ils représentent l'opposition radicale en fait loolu aujourd'hui loolu mooy seen seen seen défi Sénégal yi moom je pense ci différence boobu xam nañ ko différence bu président Idrissa Seck ak euh, muy l'opposition bi mu mën a tuddee l'opposition radicale la différence est est déjà faite parce mm. que président Idrissa Seck quand li nga xam ni ñëpp nangul nañ ko ko ñëpp d'accord ci mooy c'est un d'État fini macha allah loolu la ko yàlla suturaale mooy ko xam état màgg ci yàgg ci mais également nekk républicain et ça c'est important républicain mooy ko xam ni respecté nga les institutions mais également président Idrissa sec aussi dafa am loo xam ni moom mooy différence am ak ñeneen ñi mooy nitu jàmm la homme de paix parce que président d'ailleurs ñun en 2007 bi ñu defee coalition jàmm ji jàmm ji la paix Abdoulaye daani woon jàmm ji moom lii moom du jàmm coalition moom bi du mooy dinaa def tout mu tas donc kon homme de paix loolu ñëpp nangu nañ ko ko et yi tey loo leen wax te waxoo leen jàmm waxoo leen paix waxoo leen lu loo xam ne dañ dalal réew mi waxoo leen dara. sauf que dans la réalité tey. Mhm. man gis naa sondage yu bëri yuy daw. Mhm. Ousmane Sonko dafay tripler même les scores yi Idrissa Seck mën a mën a mën a. mën a am mais c'est xam nga loolu moom laa la c'est la perception mais également c'est lié à un contexte particulier mais man. honnêtement j'ai pas les sondages j'ai pas vu les sondages wax dëgg yàlla xaw ma comment ça te même boo defee sondage populaire aujourd'hui non non sondage populaire kay. boo defee sondage populaire aujourd'hui waaw mais tey soo ko defee Sénégalais yi. lii leen seen préoccupation principale lan la c'est la paix seen préoccupation lan la c'est la la stabilité Sénégalais xamul rey Sénégalais xamul taal xamul violence yi ñu bëgg indi ci réew mi xamuñu ko te ñu ko fi indi xam nañ leen Sénégalais ñoom ban alternative dañ leen di offrir ban solution par rapport à la situation actuelle pour ñu améliorer ko loolu la ñuy sénégalais yi loolu lañu seen préoccupation te loolu xam nañu quand ci loolu li ci par exemple euh, Idriss Seck proposé ak li mu ci wax te côté boobu sénégalais yëpp nangul nañ ko ko nag ça moom je pense en terme de de de de de de, de stature d'homme d'État mais également de leader boo xam ni ñëpp nangu nañ ni su yoroon réew mi tey ñëpp dinañ nangu yi dina ko teg ci yoon mais également dina def ba yoon dëkk bi am jàmm am dal am stabilité mais également ñu respecte les institutions kook c'est le président dafa mel ni dans